di la siyaare bu baax maa njaboot gi ma àndal muy njabootu ala siñ tàkko bis ki tey li may xeebu xeeb maa ko fa nekkal euh, ki nga xam ne moom ak ci ay doomam tey mooy soxna Ndey Mbàkke même dénkoon Cheikh Mamadou Mourtada kii mooy doomam Serigne Nooyin Mbàkke mi ngi fi soxna Ndey waaw njabootuk soxna jëtu itam ma nekk kër si Modou Rokhaya ak soxna Aminta ma ne woon kër sëñ Abdou Baaxe ñoom ñëpp ñu ngi fi njabootuk alaaj moor Faati Mbakke mi nga xam ne moo doon taawam nii njabootuk sëriñ As Faal itam sëriñ Jiili mi nga xam moom la am ak soxna Aminta sa moom mi ngi nii ak rakkam ñoom ñëpp ñu ngi ci mbooloo mi ak lenn ci magi taalibe yi ñoom ñëpp ñu ñëw gunge si ma tey ma ñëw ci yow di la siyaare si ak di la di sàkku si ndigal ci bis bi nga xam ne moom lañ koy defal moom El Hadj Sëñ ca gaawaan at mu ne muy bésub ñaan mu war a toll ak alxames ji ñu jublu daaw ñëwoon nañ fi wax la ko sàkk ci yow ñaan ba nga nu ñaanalee na mu demee kawe woon na suñu njort doota ñu dellu siwaat di di sàkku si ñaan euh, bis ba nag dañ caa dugal ci biir bis ba bis bi nga xam ne moom la ñuy defal El Hadj Mor mi nga xam ne moo doon ab taawam te war nu gannaaw daaw. ak njabootam ay doomam wax ne duñ ko sàkkal bis dañ koy dugal ci biir bisub Alaaji Sëñ Tàkko moo ak njaboot Sëñ Ass Fall ñuy sàkku nga ñaanal leen njëggal ak suñu borom ak yërmandeem ak ñañ fa fekk ak képp ku leen fa fekk gannaaw loolu nag sëriñ bi man duma la sant dama lay ñaanal yàlla li ma lay ñaanal yàlla mooy ñaari baat rek laa koy ñaan sa bëggu àdduna gu àllaaxira yàlla na la ko yàlla defal ndax da noo jox bis da noo jox bind yoo xam ne jàng ko jàng nañ ko ci téere yi naam waaye biñ ñëwee danga nu ko yombalal ba ci njëkk mooy jàngal nga nu nit nu muy àndeek kilifaam te damay dégg nga di ko wax si ñaari baat mooy bàyyee ko boppam bàyyee ko sa bopp loolu jàng nañ ko ci yow ci sa waajur yi ba léegi nga di ko doxe bi la sunu borom tegee fii nga toog itam nga jàngal nu njabootu Serigne Touba gi nga xam ne ñooy taalibeem yi di alalam nuus war a àndeek ñoom. loolu it jàng jàng nañ ko ci yow te noonu weesuwut ñoo jiite ñu ne nekk ci seen kanam na nga bëgg ñu mel ni mel ni yow soo ni melee rek ñu mel ñu mel ni nga bëgg loolu it ñu gis nga jàng jàng ko ci yow loolu nag dañuy ñaan sunu borom yàlla na ko yàggal cant gi nga xam ne war nañ la ko cant lépp nag xajut ci sunu xol damay wax ne gis nañ seetlu nañ ci yow lu nit xejj xejj ci yow du tax nga jox ko cërub séen lu mu sori sori. ñaari cër yëpp ngay joxe ku nekk li mu am ci yow mi ngi ciy jot moo tax cofeel gi la nit ñi ëmbal jullit ñi ak murit yi kenn mënu koo wax fa bi ma rahmatin min allaahi linta lahum wala kunta fassan xaliseel xal bi lan fadu min xawlika loolu rek mooy li ne ci yow li neex nit li tax nit ñi amuñu sago ci yow sa jikko rek la ak cër bi nga leen di jox loola la ñëpp yéenee delloo gannaaw loolu itam ngir bañ a wax wax ju gudd euh, dafa am loo xam ne dañ fay ñëwoon daaw jeej ci sëriñ Seex mii lañ ko jaare woon mooy dañ doon sàkku nga ñaanal nu te yëkkatilu sa kàddu ci diggante yoon wi nga xam ne moo jóge Bambey ñëw gaawaan ñu dimbaloon ba mu nekk Godoro bi nuy ñëw ci leen jaar lépp àgg na te gannaaw yàlla sax ñaar rek tax loolu yi noo la ciy sant waaye nag ñi ngi ci dolli itam bëgg nga dolli nga santal nu ki nga xam ne nii nag ci loxoom la jaar muy ki jiite réew mi ndax président bu fi mas a jaar sàkku nañ ko ci wetu mosut a sotti ci moom nag la ko suñu borom sottalee te wolof dafay wax na. ku am fulay ne duma sant kenn war a am ngor sant ku la defal dara nun nag ku nu defal danañ ko danañ ko sant loolu yi mu nu defal xam nañ ne réew mi yëpp ko sàkku mu bàyyi ñëpp defal na ko loolu war nañ ko sant te seedeel la ko ndax sab taalibe rek la loolu nag ñoo ngi ciy am mbégte bu baax dina la xamal ne itam kàddu gu mujj gi li tax suñuy tànk bëriwu fi waxal naa la ko daaw damaa wax ne toolub Serigne Touba bi nga xam ne yow mii sa loxo la tey la nekk tey doon wa dooñ wañ ca yore ca gaawan danoo bëgg taxaw temm ci dooñ wa set wecc ba du am menn ñax jur ga itam ñu sàmmala ko ba du réer ba du ruur ba lépp taxaw ci sotti ci loxoy Serigne Touba loolu mooy sama yitte àdduna guddeeg bëccëg looloo tax doo gisoo gisoo ma wenn waxtu maa ngi lay sant la gërëm bu baax Mbacke. jërëjëf Mbacke dégg naa wax ji bu baax dégg naa kàddu bu baax a baax a baax a baax li ma ci neex bari na lool eh, li ma ci neex bari na lool waaye li ci jiitu nag eh, njaboot gi nga boole. ci gen boom nii ngeen bokk fi dajamal ko ànd ñëw fi fi loolu loolu loolu loolu loolu loolu loolu jën itte jën sama jën sama ko mën kawe ma lu ma mën a bëgg rek looloo ci jiitu njaboot gi ànd eh, nañu war a ànd eh, nekkal Sëriñ Tuubaa nekk sëñ Tuba nekk sëñ Tuba weesuwul nekk sëñ Tuba moom neexul xam sax waaye waaye waaye waaye waaye waaye waaye muy muy koo xam ne eh, ku wéetal boromam la eh, nekk ci diggam ak yonent bi li nga xam ne mooy ndigalam boolewu ci dara biñ ko nopp biñ ko gisee biñ ci wéetal boromam ak topp yonent bi <laughs> kooku loolu mën su ko xam sawaay waaye foofu la ñuy tàmbalee njàng mi kem kàttan daal lu nu ci yàlla gën a man taw feex ñu gën a am tawfeex ak gën a xam sëriñ bi gën ko mën a dund loolu rek la lii nga lii nga def nag fa tabarakallahu mooy yoon wi waaw njaboot gi bokk ba ñoom ñëpp ànd bokk bokk jënd jublu bokk benn baat eh, loolu fa tabarakallahu eh, yëg nañ yëg nañ yëg nañ taxawaay boobu ay nañ taxawaay ndax jël fépp fépp lañ ko bëgg waaye nii nga ko defee waxee ko nii defee ko nii nga ko defee loolu fa tabarakallahu euh, leer na nañ te te te te te jëf ju rëy la jëf ju rëy la jëf ju jëf ju jëf ju jëf ju dolli suñu yaakaar la jëf jëf ju sedd sedd la waaw waaw jëf ju la noonu ci suñu bopp waaw kon man foofu rek laa ci mën a yem waaye foo ma àgg sax mënu ma ko wax ci sama làmmiñ kon nag Mbacke jërëjëf ñu ne sant bu baax a baax xamoon naa sax yitte ji fa nga jëm ak yoo xamoon naa bu ma la xamee rek laa xam sa junj waaye nag la nga loolu lépp nag leeral na leeral ko tey jii waaw la ma yaakaaroon ci yow lépp eh, lépp leer wane nga ko ba mu leer nañ ñi kon nag jërëjëf yoon yoon waa ngoogu rek waaw dégg naa li nga wax bu baax a baax nan dem rek waaw nan dem rek waaw lu dul sëñ Tuubaa rek bu bu bu bu bu bu nu soxal lu dul sëñ Tuubaa rek bu nu soxal te yàlla rek tax nag waaw loolu rek la jërë ngeen jëf tubarkalla maa ngi leen ñaan suñu borom bu baax a baax nga xam ne mooy def dindi mooy def di dindi ci barkeb sëñ Tuubaa yàlla suñu borom gàttal leen gën leen gàttal tawfeex sëñ Tuubaa ba seen lépp di lépp lépp di womatu tawfeex sëñ Tuubaa waaw ndax man loolu loolu rek laa gis loolu rek laa bëgg kon li ma bëgg rek moom leen di ñaanal suñu lépp na nekk wom wom lan la see womat mooy nay nay nay tawfeex sëñ Tuubaa rek waaw loolu rek loolu rek la. nee na moo ko way juram ñoo bokk wenn ween sëriñ Muntaxa nee na moom Daaru Salaam la bokk jërëjëf Mbacke taalibe yi kontaan nañ seen xol sedd na waaye rawatina nag njaboot ala sëñ tàkko mbakk gi nga xam ne sëñ Mbacke Anta moo leen ànd ñoom jiital leen magi taalibe yi daal liggéeyal baayam ca tooli Sandaga di bay di ko jox tey ñoom loolu di ko àndalaat ñi fi yàlla fekk sëriñ baa ngi ñaan ak mbooloo mi ko àndal yàlla nañ ko yàgg ànd ci barkeb sëriñ Touba nga ñaanal mbooloo mi nga xam ne ñoo àndoon ak baayam ba tey wëlbati ànd ak baayam ba baayam demee léegi ñeent fukki at la ak juróom ren mag ñi wëlbati ko ànd ak ñoom tey yi ñëw toog ñëw siyaare seen mbàkke yàlla na jotaay bi yàgg yàlla nañ la fi yàgg fekk ci barkeb Alaaji Tàkku Baay Jóoba ngi nii toog moom it di ab taalibe Alaaji Tàkku waaye wëlbati ko joxaat lépp sëriñ Mbàkke Anta ànd ak njabootam taawam sëñ galas ak njaboot gi yëpp ak soxna ya njaboot gi ñëpp a ngi nii fa seeni laa siyaara si ak ñaanal la balay sa taxawaay yàgg waaye di la sàkku nga ñaanal sëñ Mbàkke Anta mi nga xam ne ginnaaw yàlla tey mooy moo la nekkal sëñ Touba nekkal sëñ gaawaan nga ñaanal ko aw fanam gudd ay cëram wér ci barkeb sëriñ Touba ñu ngi lay sant bu baax Mbàkke li nga wax rek sa wax loolu ci lekk ci gën a neex nekk leen ci dina gën a yàgg gën a neex ba àjjana Mbàkke yàlla nga gudd fan yàlla nga gudd fan ci barkeb sëriñ Touba Morgana.